téléphone 77 394 73 73 agence Techno Habitat mooy ca Habitat offert. noo ngi sant Serigne Touba bu baax di wax jërëjëf Serigne Touba di am mbégte lool nag euh, di ñëw fii ci Touba Bataveya fii ci kër sëriñ Touba gi fii ci Libreville fii ci Libreville nekk ci waajtaayu. Euh, dem ci caravane Mayumba ñoo ngi nii jëm yoonu Mayumba ñoo ngi ni waaj a xëy murit yëpp génn nañu mbooloo mi génn nañu oto yi génn nañu ñoo ngi waaj ah, di xamal mbooloo mi ne euh, mbokki taalibe yëpp yi nekk senegal ak yi nekk bitim réew di xamal ne mbokki Touba yëpp mbokki Njaareem fépp fu murit ne ci àddina Mbàkke Bari Mbàkke Bawol mbakki Kajoor fépp ak Daaru Muti tey am nañu mbégte lool euh, ñëw fii ci Gabon fii ci Libreville Euh, def fi ay bis jóge fi soog a jëm nag fële ca maayo ba nga xam ne fa la yoon wa gën a tare fa yoon wi gënoon a méttee fa la yoon wi gënoon a sore nga xam ne digganteem ak Libreville rek 800 kilomètres la. xam ne godd yi gën a soxor ci àddina maanaam yooyu mag yi xam ne mooy mouche ZZ yu mag yi fa la ñu nekkoon rabi jaan yu mag yi golo yu mag yi euh, xeeti njanaa yu mag yu bon yëpp fa la ñu féete woon ngir ñu mën faa bu sëñ bi ngir mën koo faagaagal waaye ndam li moo am tey jii nga xam ne siiw na ci àddina nga xam ne mi ngi ci biir xeetu yëpp ma ngi ko amee foofu ca Mayomba kon bisub tey bi bisu mbégte la bisub màggal la bisu cant la ah, ñu ci am mbégte lool ah, di ci jël kaddu di sant waa caravane bi yëpp nag ci coordination coordination bi nga xam ne Serigne Cheikh Mbengue moo ko jiite ak ñi mu ko àndal ñëpp ah, ci ndigalu sëñ Mountakha Bassirou yàlla fi yàgg te ci teewaayu doomam taawam ñu koy wax sëñ Koso donc man la woon professeur Gaye maa doon jël kàddu di saafonteeg mbooloo mi di leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum téléspectateurs yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar euh, di leen wax ne ñu ngi fii di bëgg a départ fii ci daayira Bataveya ñu gën ko xam ci daayira Matlabul Chifa yi. ah kon mbokk yi ñi nga xam ni ñooy pèlerin yi nga xam ni ñoo war a dem ngir toppaat jaar jaari sëriñ Serigne Touba fële ca Mayomba ak fële ca na ñoo ngi waajal pour dem ñun nag ñu jógee Sénégal bii mooy suñu ñetteel yoon ñuy ñëw di ko teewe ah ngir rek toppaat ci tànk yi nga xam ni sëriñ Touba jaaroon na fa te mu waxoon ne samay tànk de fépp foo xam ne jaar naa fa bu ko fa topp doo fa gis lu dul Euh, ndam doo fa gis mukk loo may xeebe wala nga gis fa loo may loo euh, euh, loolu daal moo tax ñu toppaat tànk Serigne Touba te biñ fi ñëwee tamit gis nañ ne Serigne Touba ndam rek la fi jëlee ci kaw tubaab bi nga xam ne moo ko fi indi woon ndaxte képp koo xam ne indi na la fi sa bakkan fi la des ba mu des Serigne Touba dong moo fi ñëw liggéey liggéeyam bu sell ba delluwaat ci réew ma yóbbu xeewalam ngir taalibe yi loolu nag la ñuy barke boobu la ñuy topp siwaat di ko ci dab si ngir rek liggéey la ko Serigne Touba kon defuñu lu rek kontaan lool ci teewe gi nga xam ne teewe nañ ko ak am am yëg-yëg xam ne daal yëg nañ ko ci ah, ci euh, liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal Serigne Touba kon ñu ñaan yàlla rek suñu borom teg ñu ci yoonu jàmm ndax yoon wi sori na gudd na euh, sept cent et quelques kilomètres yoo xam ne war nañ koo daw Euh, ci àll boo xam ni yoon wi neexul waaye lépp rek liggéeyal Serigne Touba la te jaral nañu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah. ah xanaa di sant yàlla rek di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa ah, di xam ne karawaan bi day xewlu sëñ Touba la gu mu ñu andi rek mboolem ku di julli de waxuma sax murit waaye mboolem ku dul julli de war nga koo siyaari xool fa mu ne nga yegg fa waaw. waaw mooy jumaay Mbate bi yaa Mbate ñu nekk fi nag nekk fi ci ah, ginnaaw sëñ Fallou Bousso nekkoon ak ñu nekk jëw di nekk ak moom ak soxna maam Jaara Bousso lu ñëw noo koy taxaw nekk ci bokk ci màggal ku ñëw di fi nekk ñu nekk ci di sant rek di ñaan yàlla na xéewal yu yokk fii ba Sénégal di sant sëñ Touba bu baax di ñaan yàlla na fi yàgg na fi taaliba yi yàgg te ànd ak wér ak wér li barke sëñ Touba. ñu ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal jëwriñ ñoom jë sëñ Amdi Moodu Mbenda Fall moom it mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye ñoo ngi nii ci wàccaay bi ba fii ci Touba Matlaboul Fawzeyni ñu gën koo xam ci Touba Bataveya di waaj a départ nii di jëm Mayomba di ñaan ci baaxu sëriñ bi doole Cheikh Ibra suñu boroom teg mu ci yoonu jàmm ak salaam nu dem ci jàmm yegg ci jàmm fekk fa jàmm dellusiwaat ci jàmm lépp luñ fa ñaan yàlla na ko suñu borom nangu waaye lii nga xam moom lañ njëkk di ñaan daal mooy suñu boroom yàggal fi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ba li mu yéene liggéeyal maam ju tedd ci Serigne Touba suñu borom may ko kàttan ak doole jum ko jëfe ànd ko moom. xaani léegi montagne kese kese la woon ñu def fi terrain ñu ne woon waaye léegi nag sëriñ bi nga xam ne muy sëriñ ak mois mi indi na fa tëli bi ñu ko indi na fa courant bi toll te defe naa ni fan néew dinañ mën a takk parce que ku bëgg a dugg. karawaanu euh, Mayumb bi ñaan suñu borom dem si jàmm ñëw si jàmm lépp loo xamante ne moom lañ fay uti rek fa fa Mayumb suñ Tuubaa dafa ñu ay xéewal Sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul au Gabon, taw Tawfekh production di si ànd ak établissement mbay et frères Techno Habitat ak Digital Store ngir gunge leen ci bisu tedd yooyee